wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida laqin lisaani waxlulan min xuluqat wajalhu shakiran wa zakiran abad mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu te di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru màgg wu tedd yi nga xam ne ci lañu dugg te muy weeru koor di ñaan bu baax gépp jaamu yàlla goo xam ne def nañ ko ci suñu borom nungu ko te fulal ñu ko ñoo ngi baalu àq ñëpp itam tey baal ñëpp àq di ñaan suñu borom bi subhanahu wa la mu boole ñu jéggal comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo ànd ak yéen rek ci ay bis bi jot di fàttalante ak yéen ci leen ci téereb sëriñ téere sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu ci deen ànd ak yéen ci suñu jataay yi weesu yépp ci téeram boobu nga xam ne moo tudd Nahju Xabaa'il Haaj te muy téere boo xam ne lépp sëriñ bi ay teggiin la ci jàngale waaye lépp sëriñ bi jëflante bu rafet la ci jàngale mu mel ni tey fi nga xam ne fi dañuy bëgg a doore suñu bind rek euh, yaakaar naa mooy fi nga xam ne fi la euh, téere bi jeexe ndax fi nga xam ne fi la sëriñ bi jeexale téere bi foofee lañ war a dale suñu bind tey kon bu ko defee day mel ni tey jii suñu wàccee suñu kàddu incha allah ci la téere bi di mate incha allah ñoo yemoon ci fii sëriñ bi di wax ne xasbuna allahu wa ni'mal wakiilu tey ñuy continuer ci suñu bindu tey sëriñ bi di wax ba tey ni xadintaha mat na nahju xabail xaaji yoonu pajub aajo fii xasdi zarai ci góob mbayum seyxina suñu sëriñ addal xaaji te mooy alxaaji sëriñ bi radiyallahu anhu na téere bi nga xam ne moom lañ jëloon di ko taalif tudde ko nahju xadaa il xaaj te sukkandikoo woon ci sukkandikoo woon ko ci téere ki ñuy wax addal xaaj yi sëriñ bi nee na téere boobu day egg na téere boobu mooy ban mooy téere bi nga xam ne mag ñi ñoo sàkk woon ci ñoom mu bindal leen ci ay teggiin sëriñ bi radiyallahu anhu bindal leen téere bi ngir ñu man koo jëfandikoo ci lépp loo xam ne moo o aju ci ay teggin sëriñ bi na kon téere bi fii la yem moo tax mu ne xadintaha mat na nahju xadaa il xaaji yoonu pajub aajo fii xasdi zaran seyxin addal xaaji ci góob mbayum suñu sëriñ ma nga xam ne mooy addal xaaji sëriñ bi ne alhamdu kon mboolem xeeti cant yi lillahi aji yay la ñeel yàlla almuini yàlla mi nga xam ne ci moom rek lañuy ñuy dimbandikoo arraaji yàlla mi nga xam ne moom rek lañuy ñu yaakaar ci lépp loo xam ne mooy suñuy mbir alallazi ca la nga xam ne ata joxe na ko min istixraaji ci ak génne sëriñ bi ne kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax suñu borom moomu nga xam ne moo ñu dimbali ba téere bii li ci mébétoon lépp mu jàppal ñu ci bañu eggale ko ni ñu ko bëggee ñi ngi koy sant bu baax a baax ci mboolem xeeti sant yi nga xam ne moo tedd te sell euh, te ñeel ko waaye it ñi ngi koy yaakaar moom suñu borom bi taala mi nga xam ne lépp loo xam ne moom la ab jaam di dugg moom rek la ci yaakaar mu ne nag sakartuhu sant naa ko moom sama borom jàlla màgg na alal yi ci génne gim ñu génne mina saqaawati ci ak texeedi wala istidraaji akub jay ne na kon maa ngi koy sant moom sama borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci génne gim ñu génne ci ak texeedi maanaam peeg gim ñu peegal ak texeedi waaye peeg gim ñu peegal ñuy jayu ci li nga xam ne mooy àdduna ba e, fegal ñu àdduna ba du duñu jay ci genn wàll sëriñ bi nee na loolu ñu ngi ci sant suñu borom bi subhanahu wa bu baax a baax loolu nag day mel ni sëriñ bi bu koy wax day nuru euh, ak wàcce sa bopp ak woyoflu waaye sëriñ bi moom yaakaar naa lépp lu xeetoo ak euh, mbirum àdduna moom da daan jaar nale mu jaar euh, ca geneen wàll ga mu ne summa salaatu topp julli wa salaamuhu ak sëlmalam mooy jàmm ak xéewal maan boole seen alal lesi yal na nekk ca nga xam ne jamaa boole woon na kullal mazaya boolem maya kooke mooy kan mu ne sayidina mooy sunu sang alhaadi may aji jubale allazi ma nga xam ne xat nafa jariñu na jariñ na muhammadin te moo di muhammad safi'i kullim sufaa mooy ki nga xam ne mooy ràmmu képp koo xam ne aji ràmmu la ëllëg wala mooy tinu képp koo xam ne aji tinu la ëllëg sayyidina te kookee moo di sunub sang almamduuxi kadi kañ tàgg fil qur'aani ci alqur'aanul karim bil xuluqil azimi ci jikko yu màgg ya wal ixsaani ak ak rafetal wa alihi ak ñoñam muy waa këram wa saxbihi ak saxaabaam te mooy ñi nga xam ne ñoo jamondoonte woon ak moom te gëm ko doon topp woote bi nga xam ne moom la doon woote al ixwaan yi ña nga xam ne ñoo di ay mbokk zawit taxaabu bi ña nga xam ne ñoo di ak ñoo di woroomi soppante bila adxaani ci lu dut ak mbañeel ci lu dut ay mbañeel kon ne na maa ngi julli di sëlmal ca ka nga xam ne moo dajale woon mbooleem ay may lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di may ab jaam jëmm joojee moom moo ko dajale kookee mooy kan mooy suñu sang ba nga xam ne moom moo ñuy gindi waaye suñu sang ba nga xam ne ëllëg yowmal xiyaam képp kuy tinu moom moo lay tinu kon kew ko ne na mooy kan mooy ki nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tàgg ci alquran ci jikko yu màgg waaye moom suñu borom subhanahu wa taala tàgg ci alquran ci lépp loo xam ne moo di ak mat ba suñu borom wax ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim ndaka yow de lépp luy jikko ju rafet de yow dong yaa ko yeeyoo yow dong yaa ko kon yonente bi sallallahu ak matam fépp la euh, daj ba suñu borom tàgge ko noonu ndax ay jikko moom bu matee euh, mooy nit ki mat na sëkk kon euh, sëriñ bi nee na mi ngi julli ci yonente boobu nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tàgg ci alquran waaye mi ngi julli it di sëlmal di ñaanal ñi nga xam ne ñooy waa këram waaye mi ngi ñaanal saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo ànd nag moom di ko jàppale ngir taxawal diine saxaaba yooyu nga xam ne ak soppante ak bëggante ak cofeel rek moo doxoon ci seen diggante waaye lépp loo xam ne ak mbañeel lay doon wala ak soxorante loole suñu borom setaloon na ko seen diggante bu baax a baax kon ne na ñooñu ñëpp maa ngi julli di sëlmal ci ñoom maa ngi leen di ñaanal suñu borom bi subhanahu wa taala jàmm ak xéewal mu ne wa asalu maa ñaan allahu yàlla bihi ci darajaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam summa bihim topp ci darabaay darajaay saxaaba yi ridwanullahi alayhim magfiratan njëggal goo xam ne ta tajarruni dina ma xëcc wammat ma li xurbihim jëmme ma ci seenu jege maanaam ngir ma jege leen euh, sëriñ bi radiyallahu anhu nee na maa ngi ñaan ci euh, barkeb yonente bi sallallahu alayhi ñaan ci barkeb saxaaba yooyee nga xam ne ñooy boroomi bëggante te soppante te yàlla rek tax suñu borom subhanahu wa taala jéggal ma waaye bu ma jéggalee ba pare na ma defal loo xam ne moo may xëcc di ma ñoddi di ma jëmale ngir ma leen di gën a jege muy yonente bi saa salaam ak saxaaba yooyu nga xam ne ñoom ñoo ànd nag moom kon loolu it ba tey mën nañoo jàpp ne euh, ci waxinu sëriñ bi la waaye sëriñ bi ku ne xamoon na ci di euh, fu mu tolloon ci digganteem ak boroomam Euh, ku ne xamoon na mu tolloon ci digganteem ak yonente bi sallallahu waaye ku ne xamoon na fu mu tolloon ci digganteem ak saxaaba yi mu ne wa an yazida nii ak mu dolli ma bihi ci darajaay yonente bi wa bihim ak ci darajaay ñoom saxaaba yi ilman xam-xam boo xam ne yaquudu nii dana ma wommat ila xubbihim jëm ci sopp leen ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhim sëriñ bi nee na it ñaan suñu borom bi wa taala mu defal ma xam-xam boo xam ne dina ma xëcc dina tax ma am ak cofeel jëm ci ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhim kon loolu it li ñu waxante rek moom lañ ciy waxaat ndax sëriñ bi moom yaakaar naa li nga xam ne mooy xeetu xam-xam li ko ci suñu borom bi subhanahu wa taala may euh, yëm na képp koo xam ne mbindeef nga wa an yakuna ak mu nekk an nazmu way wi nga xam ne moom laa doon way di ci wuyu euh, sàkkuteef loolu nga xam ne mag ñu baax ñu ñu sàkku noon sàkku woon nañ ko ci man wasilatan muy jumtuwaay loo xam ne lii dina ma ñeel walil muridina ak taalibe yi ilal fadilati jëm ci lépp loo xam ne ngëneel la wa an yakuna ak mu nekk xaawiyan di aji làq lil barakati ñeel barke wa an yakuna ak in mu nekk waaqiyan di aji fekk lil mahlakati ñeel alkande wa an yakuna ak mu nekk saafiyan di aji saafara li daa i ñeel jàngoro wa an yakuna teyit mu nekk daafi'a saqaa i muy aji jëñ li nga xam ne moo di ak euh, texee di euh, wa an yakuna mu nekk itam moom way sababal wu wusuli di sababus egg lana ñeel ñu maan boole seen lillahi jëm ci suñu borom subhanahu wa taala war rasuli ak yeneen bi sallallahu wa an yakuna mu nekkit moom way wi jaaliban bi aji wommat lil jannati jëminul ajjana wa an yakuna teyit mu nekk junnatan di ab pak an azabin walis mbugal wa an yakuna teyit mu nekk sababan di sabab euh, sababa saadati di sababu dexe wal ilmi ak xam-xam wal amali ak jëfe xam-xam wal ibadati ak jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala euh, wa an ak mu wommat ñu xëccu ñu li xusnil xaatimati jëmale ñu ci rafetu mujj bi jaahi walidil batuli ci barkeeb walidil batul te mooy ka nga xam ne moo beru woon di jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala te mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam fatima te mooy euh, fatima kon foofu yonente bi euh, sëriñ bi radiyallahu anhu daf fi ñaan rek ci tëj yi nga xam ne moom lay tëj téere bi li nga xam ne moom lay sàkku ci suñu borom subhanahu wa taala mu defal ko ko Euh, ginnaaw bi nga xamee ne def na téere bi ba pare te ku ne xam na ne sëriñ bi euh, saa buy ñaan suñu borom subhanahu wa taala day fekk suñu boroom ñaan ko la mu ko may ba pare kon ñaan na suñu boroom ginnaaw bi nga xamee ne way wi mat na téere bi nga xam ne moom la doon yaxal mat na suñu borom def ko mu nekk ngëneel ñeel ko waaye ñeel bépp taalibe ñeel bépp jullit waaye ñaan na suñu borom subhanahu wa taala téere bi nekk téere boo xam ne bu barkel la waaye it ñaan na suñu borom subhanahu wa taala mu def téere bi mu nekk téere boo xam ne luy fekk alkene la waaye it mu doon téere boo xam ne lépp luy jàngoro képp ku ko jàngate eh, am jàngoro suñu borom subhanahu wa taala wàcceel la jàngoro jooja waaye mu fegal ñu lépp loo xam ne texee di la mu fegal ñu lépp loo xam ne day jur alkande la waaye mu doon sabab soo xam ne ci la ñuy tegtaloo ci la ñuy sukkandiku ngir am ak yegg ci suñu borom subhanahu wa taala waaye am ak jotale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te it ñaan na ba tey téere bi nekk loo xam ne dañuy wommat di ñu xëcc di ñu jëmale àjjana waaye it dañuy euh, fegal di ñu jeñal li nga xam ne mooy sawara ba duñ euh, agsi ci euh, moom mukk waaye ñaan na téere bi doon euh, téere boo xam ne dina doon sabab ci suñu texe waaye dina doon sabab ci suñu euh, ubbiku ci ak xam-xam waaye dina doon sababus euh, juñuy soññu ngir ñu jëfe xam-xam waaye dina doon sabab soo xam ne dinañu soññu ngir ñu gën a farlu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye ñaan na téere bi doon téere boo xam ne day doon téere boo xam ne dañuy yóbbu ci rafetuk mujj dañuy dimbali ngir suñu mujj ëllëg buñ demee bay euh, wuy ji suñu borom subhanahu wa taala mu doon mujj gu euh, rafet rafet loolu lépp nag bi ko ñaanee bat pare mi ngi ko ñaan ci darajaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom kese mooy ki nga xam ne moo daan beddiku euh, di dem di jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye moo joxoon suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne moom la yelloote moom ko te mu yeyu ca jëmmam ja moo tax mu ne salla yal na dolli xiiwal al ilahu buur bi malikul arbaabi buur bi nga xam ne moom moom buur yëpp te moom bindeef yëpp alayhi ci moom yonente bi saa wal ali ak ci ñoñam maa sihaabi ànd maa daama li feek zu taxalluxin boroomu am jikko ju rafet euh, bil adabi ci ay teggin yanaalu lay ame xayra matlabin gën di càkkuteef fi daare ni ci ñaari kër yëpp wastawtanat te mu dëkkande anwaaru zil jalaali we leeri aji màgg ji xulubu ahli sabri xoli way muñ ya wal kamaali ak way mat ña ne na kon loolu bi ma ko ñaanee ba pare maa ngi ko ñaan ci darajaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye maa ngi ñaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom julli ci moom te sëlmal ak saxaabaam yi ak ñi nga xam ne ñooy waa këram di ak njabootam ñëpp li nit mi ngi takkoo ay teggin di ko jëfe waaye li nit mi ngi am lépp loo xam ne moom lay saaku ci ñaari kër yi euh, muy adduna ak alaaxira maa ngi ñaanal yonente boobee salaatu ak salaam mu nekk ci moom bu baax a baax a baax waaye li feek leer suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wàcc ci xoli way muñ yi di wàcc ci xol yi ñi nga xam ne ñoo mat te di xam li suñu borom euh, dig la ñu koy jëfandikoo nee na li feek loolu mi ngi am rek maa ngi ñaanal salaat ak salaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dañ ciy dégg ne sëriñ bi radiyallahu anhu fonk gum fonkoon yonente bi saa sallam moo tax euh, euh, nu ne la koy ñaanale ci biir euh, xasidaam mi nu ne la koy ñaanale ci biir téeréem yi waaye kon lii day wone day tegtale ne sëriñ bi radiyallahu anhu amoon na place bu kawe kawe boo xam ne tegoon na ko yonente bi saa sallam ba mën nañoo wax ne sax misaal ko yombut kon loolu la sëriñ bi radiyallahu anhu tëje téere bi kon ni mu ko tëjee mooy ñaan na li nga xam ne moom la euh, bëgg suñu borom defal ko ñi nga xam ne ñooy jàng téere bi ñëpp ñaan na ko ci mujj gi waaye bi mu ko ñaanee ba pare da koo tawasule ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi mu ko tawasulee ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare da koo euh, lënkalewaat ak li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne moo taxoon a jug téere bi muy li feek képp koo xam ne mi ngi amee ay teggin di ko jëfee li feek mi ngi jëfe teggin yooyee salaatu ak salaam yàlla nekk ci yonente bi waaye li mu ñaan fee yàlla na ko suñu borom def ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon foofu mooy fi nga xam ne fi la téere bi jeexe wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin kon foofu la téere bi yam ala sahabati wa saadati kullihim